marché bi am na bu baax a baax xar waaye itam am na ay ndugg loole vice président bu association bi ëmb consommateur yu Sénégal yi moo ko xam xamle ndax nee na produit yëpp am na ci marché bi ay fan rek bi mu desee ñu màggal tabaski. marché bi fu mu ne situation bi normal na bu dee xar yi li ñu gis bu continuer di ñëw amul benn problème mais nag na région bu nekk ak département bu nekk am xar bu dee diwlin bi wax dëgg yàlla doy na. li ñu ci naqarlu rek mooy ba léegi ki nga xam ne moom la mooy détaillant bi waroon na jaayee 975 gis ci boppam ba tey mu ngi ci 1100 francs wala parfois sax 1200 te loolu jaaduwul euh, bu dee pompiteer rek soble nee na gàññ waaye mu sàkk ci commerçant yi ñu bañ a profité ci lu ni mel di yokk njëg yi. organisation yi commerçant yi wax ak seen membre yi ba du ñu profité ci situation bi yokk njëg li te njëg li war ñor ku nekk dafa war a mos rek ndax. feetu tabaski feetu musulman la waruñ cee profité. fàttali ne ba ñu jeexalee conseil interministériel bi ñu jagle loon wàccaayu tabaski 2024 gouvernement bi jëloon na ay mesures ngir fexe ba réew mi am xar yu doy waaye tamit denrée yi su ko defee rek ñu may askanu Sénégal ñu mën a amal tabaski bu mu ayib.